Dadi Mbouloum wala air dalam mo fete a droite adversaire mo fete a à gauche waaw waaw waaw Dadi Mbouloum jël nako dan nako rep nañ jogat arbitre jël amna wala amul waaw waaw Dadi Mbouloum moo yor ngemb la gauche bi adversaire mo yor ngemb lu Wow, wow. Wow, wow. dadi sol nako na wetu nako tak nako na ko ñu dadi daan na ko dadi daan na adversaire am Aidara waaw waaw Mamadou Faye ordinateur la champion d'Afrique borom ngaan ñaaxar borom biibaan borom région de Fatick borom àll bi waaw waaw mu ngi noonu nee naa la kenn du moom ordinateur qui sème l'ambiance Toubacouta ngi noonu borom jamono wara buuru Saloum waaw revanche boobu amateur yaakamte nañ ko tey General TV, don't give me